waaye nag yëkkati ay yat ak ay ngànnaay dem dóor ay nit keroog Ziguinchor suñu gaawuloon am na benn xale boo xam ne fii ci baat bi lañ ko jam paaka deret bi naan faj faj faj foo toll mu yegg fa kooku mënoon na euh, euh, mënoon na mënoon na euh, ngàccu ba jeex takk suñu gaawuloon loolu barki démb la ana justice su Sénégal ana procureur ana polis ana gendarmerie li gën a garaaw mooy su ñuy def yu mel nii keroog bu ñuy attaqué Ziguinchor police a nga fa dañ leen woo ñu ñëw fële la ñu taxaw ci kaw tali bi egsi waaye bi ñu delluwaatee waajal ko waa ji song ñu duma ko duma yu métti woo woo na police mu ñëw doyul mu woo gendarmerie mu ñëw doyul ñu woo armée ñu ñëw ak seeni mété loolu yéen ñëpp gis ngeen ko deux poids deux mesures pour lan kon fi une violence moi fi am violence d'État te yemul ci lola dama ne li moy li nga ñun 23 mars bañ fi condamné Karim Wade ci lo man dama wax ni li du justice sama kaw may règlement de compte politique du justice fan la créé fan la liste bi mu du amna ci ño conseil des ministres top du justice buñu nax sénégalais yi sénégalais soif de justice mais dañ leen di nax di utiliser ay leviers judiciaires pour régler des comptes politiques yeneen injustice yi gis neen li fi def Khalifa Ababacar Sall ñepp ko gis te ñepp xam nañu jaadout dara tax ko woon jóg dul briser un homme yàq ko téré ko mëna poursuivre sa carrière politique ñepp tok di sétane lool loolu yagul momit ak yeneen ak yeneen yo xam ñaata yoon lañ fi japp activiste yi parce que dañu wara def marche parce que dañu wara dañu def ben post ci Facebook

dal ci kaw wa keur Macky Sall fekk len ñuy meeting ñu dal seen kaw wala fekk len ñuy def seen karawaat ñu dal seen kaw wala wala wala kan moko fi mëna a amut amul te du musa am kon lan mo andi wax imma ñeme nañ nit ñi ñeme nañ ñi ñuy def dañuy dem japp ci loxu Macky Sall ne ko yow ya nekkul ci deug yar bi nga yor di door nit ñi tek ko ci suuf suñ ko ñemewul nak nañu dem tok, bay nit ñi ñu régler seen problème parce que tamit ñun ñëpp ay julit lañu alquran biñu gëm mom ci bopom lan lañu sante sant bu nyari ñaari nit ñaari groupe tongo nañu bu dee ñaari groupe tongo nañu sama alwa soriwul nak sama serigne sama xarit euh Euh, euh, sëñ euh, Al Amin si li may wax peut-être moom ma ko gën a xam waaye alxuraan da ko wax ci suratul Hujurat bu dee ñaari groupe tongoo nañu verset 9 na ngeen essayer de seen diggante waaye nag bu amee benn groupe bu beew bañ continuer moom ci tooñ bi ak ci dóore bi yéen ñëpp na ngeen ànd xeex ak moom ba xelam dellu ngeen doog a rafetalaat diggante bi yàlla moo ñu gën a màndu yàlla moo ñu gën a màndu nit ñi dañoo ragal Macky Sall wala lan yàlla xam na ni lii fi am yépp su doon am na benn bu jógee ci opposition benn bu jógee ci Ousmane Sonko kon dootuma xaj ci dëkk bi dootuma fi xaj mais lan moo waral na Sénégal bu nit yoree nguur lu ko neex mu def te kenn du ko wax ba pare ne waa opposition banque leen seen yox rek te toog muñ lan moo waral ñu jàpp ni fii Afrique rawatina Sénégal ku nekk opposition rek yow da nga war a nekk benn souffre-douleur mooy dañ ñu sax soo ne opposant la ah waajal de di nga dem kaso lan moo ko waral pourquoi xanaa tubaab bi ñoo ñu gën a bëgg seen bopp.

loolu nag dina fi dañ ci nii wala ci nële dina fi dañ wax naa ko léegi Macky Sall ci la ñu am ci président moo ci gën a violent moo ci ëpp fitna ndax li ma taat li ma site nii amul ci benn nguur bu mu am gisaguma ko fi moom ci juróom ñetti at lii lépp def na ko fi te su ma continué woon cité boo matul 15 minutes encore ñi ngi fi may cité loolu ngir ndax lan te li gën a garaaw nag nit ñee koy nax ay nit a taxaw naan waa ji c'est un grand stratège politique nga stratège politique mooy ñoom Mahathir mooy jox nañ la réew def nga ñaari mandat réew ma soppeeku na nit ñi seen jafe-jafe wàññeeku na réew mi tegu na ci développement loolu mooy stratège politique waaye stratégie politique boo xam ne njuuj njaaj rek pour liquider adversaire mu am des pseudo analystes yoo xam ne soo leen gisee ci télé yi Macky une bête politique Nous nous ñoo xam nuñ ko nous nañu bàyyi suñu ñeneen démocratie Nous avons des règles de jeu transparent transparentes Nous ñi di compétir ci ni de gën a rafetee li tax ñu gën ñu sénégalais bu vous dem dund Italie wala Allemagne wala États-Unis wala fa nationalité règles pourquoi nous sommes loolu ñàkk sa bëgg sa bopp weesuwul loolu Macky Sall doonul réew mi te gënul kenn fi ci fépp fu ñuy nattee nag ngëneel gënu fi kenn kon loolu il faut mu jeex may wax nag ni ñun duñu nitu fitna suñ doon nitu fitna keroog ci mois de mars bi xam ngeen ni kon heure bii demee na neneen ndax moom bu muy dem làqatu ci rolalam ñemeetul génn kilifa yi buñ ñu nee lii lañ leen sant defe nañ ko noonu nitu fitna du def loolu